asalaamualeykum mbokki Sénégal mbokki bitim réew. ñu ngi leen leen di leen ziar. kenn ku ci nekk turam ak santam. Hmm. tey nag bu ngeen gisee plateau bi. Hmm. dafa ala daw me hmm. ndax tey dañoo am gan gu rëy. gu rëy. suñu gan gi xal plan la rek ci caaf de. wallaahi wallaahi en tey invité nañu xaj. bi waaw waaw waaye bàyyi suñu caaf bi. waaw waaye bàyyi li nga def salaamaaleykum di ngeen wax waa waa Daara Jolof waa Barkéej ak waa Linguère ak waa kala yow mbii mbii mbii maam eh, kala kullu waa. loolu la yow nga wax lu tax wax leen loolu. lu tax ñu olof la ñuy wax. Hmm. Sénégal nuyu siyaar a ci jàmm. Ah, sa yaram jàmm. yow nag bu la neex nga tudd waa barke jëg li ngeen mbii mbii maam yi. am nga ci droit ndax mbii mi nga. Hmm. waaw kon nag gars yi kii yoroon fa yoroon ñu bàyyi la mu nuyu téléspectateur yi ñu ñu continuer ko. <laughs> yoro gerte bi boo ko booleeg si ngom bi day am guub beneen. waay merde waay yow guub boobu guub boobu bi di ko réew xaaral xaaral gerte bi jàll nga xaaral gerte bi jàll nga soog a nuyoo. Eh, duul xaar ñu dara. waay doxal yow. boo ko boolee ñoom ñaar mosuloo ko mos nga boole gerte. mën nga boole naag affaire baa ngi mel ni dege. gerte jaaxal oh, ak ak ak si ngom il faut émission bi tàmbali gi dina jeex. si ngom ak ak gerte bàyyi fi lañu. gerte gi gars yi téléspectateurs yi ba ñu ngi jégalu. Hmm? ñëpp di sant ñëpp waaw lu bees waaw fii ci télé sénégal point com numéro bi 88 628 78 88 loolu télé sénégal point com ak suñu gan gu rëy waaw gan gu rëy ak télé. waaw ah, ah. oh. télé Ourossogui ak télé. Bargny oh. ak télé Ourossogui. loolu mooy ensemble du Sénégal. bàyyiwul Kédougou bàyyiwul Kolda bàyyiwul Kaolack bàyyiwul fenn Sénégal fu waay la ba ci bitim réew sax ndax lii mooy télé Sénégal point com ñun la gan gu yeewi béy nag mooy gan gi du yaro waaw béy yi nga war a yeewi da nga leen war bàyyi ba nga dem ci gétt ga nga yeewi leen waxuma loolu di waaw loo wax boole nga si ngoom ak gerte caaf bi boole naa ko moom kay mu ngi mel ni dege hmm? foofu da lekk naa si ngoom bi de lekk nga si ngoom jàll na dangaa <laughs> yàkkal yow <laughs> dangaa fokkale moo tax affaire bi daara tax kat dangaa fokkale affaire bi daara tax léegi nag gars yi léwal la wala sànni la léwal léwal la Sami moo doon. Sami moo tegu si léwal. deuxième après Farta ñëw moo nekk ñetti doom ñetti doom ñetteel doom bi quoi. moo tudd nag Farta. moom moo mujjee umbali Farta moo mujjee juddu quoi. ah moo mujjee wasin moom war moo mujjee suukar moo nekk papa bi quoi. Ah, war nga bu jigéen. léegi nag. war ngaa jabar suukar yu góor. nice waaw yoroon mi. Uh-huh. day ni koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci réew mi. moo ko rawatina télé sénégal point com. wallaahi. télé bi nga xam ne moo man télé yëpp. waaw ah, loolu la wax duñ ko. man Youssou Ndour man Alaaji Njaay sa papa man yëpp fii mooy télé Sénégal point com loolu doo ko wérante waaw dégg nga laam-laame tey nag hmm. dafa am ñaari tem yoo xamante te dañ ce war a wax waaw bu wérawé yoo xam ne ñooy lëmbi réew hmm. benn bi mooy njaaloo ku ne xam nga njaaloo ah waaw waaw laalante gu dagul ak gu amul laalante gu amul koo xam ne du sa jabar laalu laalu yàlla gërëmul waaw loo xam ne l'islam validé waaw looloo ñaaw fen fen moom ku ne xam na fen wallaahi fen mais naaj ñaar ñooñu xanaa xamoon naa naaj da léegi gis nit takk ay ndomba xëppoo saafara mhm. di ñaan dem màkk ñëwaat li muy ñaan dara ci am xam nga lu ko waral la njaaloo ko métti waaw ah, waaw yow da nga mosu njaaloo wala mosu ngi njaaloo wala mosu loo njaaloo mosu nga jóor wala mosu loo jóor wala ay <laughs> eh, am nañ gat day hmm? dóor la wuyul loolu li nga wax ni affaire dóor nii dóor di jabar jàmbur da nga mosu dóor ay jëli jàmbur wala jël taxuloo ko est-ce que loolu sa ba tey ñu ngi télé Sénégal point mel ni mel ni mel rek dafa yor per rek ton ni si kanam ba yor per carré waaye yor si kanam bi affaire bi xamal ni ngay wax ak man wax bu njaaloo man bu dee njaaloo naa bu dee mas naa njaaloo bariwul waaw ay combien bi këtt moom nekk ca daaw bariwul non non bu la bu nekk di bariwul bariwul daal la bu ñaaloo moom bariwul moom waaw laal moom ku ne koy def waaw man damay laal looy laal waaye sama laal bariwul hmm, temps en temps daal temps en temps jamonoy set décembre janvier damay laal hmm. foofu day sedd foofu il faut ngay laal waaw waaw waaye fen moom dañ koy def chaque jour waaw waaw fe ah yow itam non non man du ma fen doo fen non non non waaw yoro yaa dàq fen nag yow tam ay yooyu noonu da ngaa mën a fen nag yoro nag waxal dëgg nag xulu xax wala kaanam da ngay fen man da ngay fen nañu waxante dëgg bu dëgg jotee da ngay fen ko fi fi kii nga peel peel lañ watee boppam bi loolu fen peel kaar nga wax peel peel mën a loolu du fen loolu lan la ñaari ñaari fois boo jógee foofu mm-hmm. gis naa ay xale yu góor ci jamono bi ñu toll nii à l'âge de vingt ans vingt vingt cinq ans xam nga nu ñuy def ci koñ yi hmm. looyee néeg kenn ku nekk di cotiser mille mille waaw néeg ba kenn du ci fanaan de benn mat laa lañ fay sànni benn ah mooy léegi laal kay tablette nen paquet protect. ah dooso loolu dooso la tudd. ah yow musa dem dooso man do loolu dooso la tudd dooso. dooso. waaw eh, dooso mais xam nga de. waaw ah, yow yow léegi li ngeen di def yéen ñaar moo gën a garaaw affaire yu njaaloo yi. ñu def fen yi ngeen di fen yi di création. waaye yaram ñun fenn ñu de. barki Rasuul da ngeen ni peew. njaaloo gën a bon fenn njaaloo eh, gën a bon. njaaloo a bon waaw a am gel boo xam ne nga ko wala nga am jabar xam nga boo amee jabar numéro téléphone gel yi doosu def tur gel ay burr ay burr ay loolu nga def yow la waaw <laughs> dama lay laaj rek yow lay def ay caayan ay ay bul ma bul dee ma laal yooyu ngay bind si ci ah. numéro yi bañ a xam pour mu bañ a xam léegi nag néeg yi tamit loolu mooy def dossier yow nga indi mille francs ma indi mille francs boo amee gel ngeen ni tey maay dem dossier eh boy suba ah, maa ah. nekk dossier ku nekk dem bisam <laughs> ah gars yi xam nga da ngay door door door door ñëw wàccaat dooraat wàccaat dooraat wàccaat dooraat da ngay dooraat maa loolu dañ ko fekkee xanaa da ngay màndi boo dóor waaw loolu moom daanaka ko salaar moom loolu daanaka ko màndi moom yi dóor yu métti dooraat dooraat doot naas léegi loolu réew mi léegi réew mi ci réew loolu dooloo nga ci réew mi man gis naa ay paa ay paa paa sama koñ Kër Mbaye Fall waaw ay paa yu def dooso comme ni ko sama wax sama papa sama Ndiaye waaw sama papa Bokar Dem waaw xam naa ko papa Bokar Dem sama papa Modou Dem waaw xam naa kon imam fan yële paase mais léegi dañ ko folli xam naa ko sama papa Mbaye Ngiraan kilifa bu mag naa ko Paa Mbaye Ngiraan naa ko xam. ñoom ñeent luy nañ benn nekk Kër Mbaye Fall. seetal ma lii. dugal dugal ay waaye dafa dugal ay maire. yan maire waaw ay muskàllaf lañ. sama tante Aïda Diallo dugal nañ ko. nga ni. sama yaay Fatou Gallo. waaw moo yoroon caabi. Hmm, caabi doo sóor. maa la xamal lii. seetal li xam nga lii. Sali sama tante Sali dem moom sama bopp bokk ndey ak baay Sali moom daanaka dafay fanaan. moom ko waaw wax dëgg yàlla Kër Mbaye Fall. xool li caga dix ans caga trente ans caga 40 ans am na 90 ans 100 ans caga dee 100 ans la ñu am rek dee yàlla da leen may guddi fan suñu caga jooju nag. ah yéen ñoo caga guddi fan la am. <laughs> waaw bu mag bu mag bu ñuy nu ñuy def. di fa dóorante ñibbi sa kër. te boo eggee doo sangu noonu ngay bu kee feebaree doo wala jigéen ñaa ngi dee seen jëkkër yi leen ko tege. wallaay amuñu ay projet da ngay sonn ay laafu ay laafu kii quoi laafa la laafa la laafu footballeur yi laafa laafa saram da am nañ jam nag laafa footballeur waaw ko koppal koppal yan koppal koppal koppal mooy lan kàppoon ngay wax waaw waaw waaw koppal yi kàppoon la wax préservatif man ci dafay ram la de yow <laughs> njaaloo nga ne mu ngi sol kàppoon amul problème yow da nga leen di valoriser noonu yow gi nga yow mi hmm. xaj nga de wallaay xaj na. waaw ndax lu la tax na doon xaj. li ngay valoriser baaxul. waaw baaxul di ko ankay. am na lu ko gën a yow de am na lu ko gën a bon. muy lan lu ko gën a bon ah, yow yaa ngi si dégg dox si chaque jour. mooy ah waaw loolu su ma seetlu da ngay waaj a xeex la. dama lay wax dégg bi. waxal la lu ko gën a gàtt bu bon de. waaw comme Mbacke. waaw ma defee ko bu bon comme Mbacke. lay yedd li mu def. waaw mu def ah maanaam. dafa gis Mor mi ngi doxaan jabaru jàmm mooy ñëw fekk jabar jabar moo ii si aaw bi mu wax ni ko sa jëkkër pré boobu dafa mball woon si aaw bi hmm. mu ñu wax ni ko yow jaaxal wax ni ko moo ii sa aaw bi sa jëkkër mi ngi dogaan waaw loolu ko jëlee waaw jabar bi tas na léegi léegi yow ah, par exemple boobu doom yi nag doom yi nag waaw loolu lan la doom yi ah, nag yow dul nga dul wu tooy xepp de tas nga loolu ko def fenn ah da nga fekk dëgg laa wax di dëgg laa dëgg moo sa muy doxaan waaw waaw jabari jàmm waaw moo wax ko jabaram waaw loolu nu ci ne waaw fen nga tas nga kër gi fen nga tas kër baaxul fen wi defar sax a gën jeex naa naaj tax nga kër jàmbur fenn bu demee nag baaji baax kenn nag am na xamé war noppil noppil utal ah. ndox naan te noppi yow ñaari biscuit naa tuub naa naa fen bi tuub naa fen bi ma fen wax naa fen wi naa fen wi tuub naa fen waaye nag waaj hmm. baax dëgg la dëgg la def naa erreur ba am waaw loolu bu fekkee man def naa erreur na ñëpp xam ne tamit dem ci jabaru jàmbur tamit baaxul dëgg na kay dem di wax ñaan jabaru jàmbur di wa ngi laal sa jabar waaw kooku waru koo wax waaye kay laal tamit kay laal tamit jar naa waxal de jar naa waxal loo ci laal kon da ko amoon accord ñoom ñaar day am accord accroché xam nga accord accroché mun nga wax waaw mais man man la ñun tey accord accroché la waaw accord accroché accord accroché mooy lan accord bi nga ko eh, yoro yoro yow sa yéeli duñ ko jël sol ko ci saaku ndax nga nekk normal waaw sol ko ci saaku bu jeex réalisateur waaw al na xool saaku waaye ki yéeli mi gudd na la a yóbbu waaw moo tane association terrain basket bii nag. terrain basket ba. lof de poule. na dëgg la. comme lof de poule jëmmi lof de poule d'ailleurs ah. de. wallaahi bu ko déggee nii. yaa ngi mel gis nga. ah waaye sa leeral garaaw la. gel boobu génneel guddi de day. yaakaar benn grève bu amoon foofu may at été jaay ak police yi. une naka romb seen bi moderniser sa kanam waaw waaw waaw université Cheikh Anta Diop bi wallaay hmm. pol ba léegi mi ñëw suñu kër di ma dama di ma subventionné ah. bal bi muy tëral la chromosome pour ma dem ci élève rek hmm. may ju damay waaf pourtant damaa waaf hmm. bi ma waafee nii la bal bi romb fiw man laa ma fii seet wécc policier bi na bal kii la boo waafuloon de boo waafuloon de bal perdu la waaye bal la def nii boo waafuloon de léegi yow ci affaire yooyu man normal Moustapha Niass yow mii waaw wax nga dëgg de boo ko amoon ay lunettes eh. buute boo amoon ay lunettes yow ay ay lunettes yaa ko war a am. a niiroo non non Moustapha leen lu ngeen ah. wax leen lu ngeen xam wax nga dëgg wax leen lu ngeen xam ci nguur gi <laughs> assemblée bàyyi kenn moom. daan na sofër jot li xeer. xeer <laughs> la bëgg xeer. <laughs> yàgg rek koro daa ànd ak Macky Sall di daaw cortège ba yàgg rek na droitel foofu Thiès ci carrière bi ñu defal lu ne lay wax mun a sama gàtt koor faral ma ñaari xeer dugal ci biir mbàkke laa jëm wóoru ay xeer la yaakaar ba sama ñas la tey ñas non ñas bu la ñoo nga am na tey njaaloon na dee de nga ñu ci waaw njaaloon bi balaa jeex na ñëpp dem faw kenn daanu fii mbaa njaaloon soog a jeex daanu maanaam émission njaaloo lu ko jeexal soog a kulo daanu fii eh, njaaloo lu ko jeexal lu daanu waaw nañu daanoo nag fii ah nan jéem a daanu nag jéem a daanu moom mënta dem daanu fii ak ko gën a góor daanu ah, mënta du bokk du bokk daanu benn ñaar nice waaye daal gis nga njaaloo waaw ak fen googu ñu wax waaw daa doy waar te daal lëmbi réew mm-hmm. ndax gis nga fen mm-hmm. lu garaaw fen lu yàq moo ko yàq mm-hmm. gis nga réew yi nga gis ñuy deer sax di xooba ko xuloo ay nena di dugg di fen di duural ki naan président bi ki wax na lii ki naan ki dafa na lee ki dafa na lee na kur wallaay fen mu ngi fépp mu ngi ci structure yi maanaam bërëbu liggéeyu kaay mu ngi ci gouvernement bi ku nekk fenal sa morom mu ngi ci politique bi mu ngi ci làmb ji mu ngi fépp te fen lu bon waaye nag fenu waaye nag fen bàkkaar bu rëy la li nga wax rëy na waaye nice njaaloo non non fen moo gën a garaaw bàyyi ko continuer waaye ay njaaloo njaaloo loolu c'est eh, dul la njaaloo dañ bon na waaye fen moo gën a garaaw waay yow eh, njaaloo lu bon na njaaloo dafa baax yow njaaloo lu bon la mosoo njaaloo yàlla moo la mosoo njaaloo yow ana me daa roob de heen ana me daa roob de heen ana me daa roob de heen ana me daa roob de heen ana me daa roob de heen ana me daa roob de heen arobaan yéen a. waaw lan ma rof moom moom rof si si asio yi. ah science la. asio yi mosul si rof yow. waaw yow de mosul rof asio yi. waaw doomu a tijjel ma. man de diw ma. ah waaw man kese. waaw rof la moom. waaw yow mosul rof yow. waaw eh, rof yaa ngi la moom. ah arobaan yéen a. ak kutu wàll taxawal la. booy Fass Mbawu. yoro garaaw nañu ko mu ngi seet. non dafa am lu mu kon bàyyi ma ko. la booy Fass Mbawu. booy Fass Mbawu ci waaj baax. ma ni booy bi la fekkoon ci tabax. faas baax dara tey ngay daw si mbedd bi sa caay bi takkal. dañ ko fàttee. Oh. Ah. ah suturaal mooy lan. waaw ah, loolu dëgg. tey ah. tey loolu dëgg rek defal naa ko yor defal naa yow nag. ah yow nag ñett yoon. kese kese kese. ndax ñett nañ la boo njaaloo ñeenti yoon. sa war a taxawal di la xaar mais ñett yoon avertissement ñaari yoon yàlla nee na la. ça va oh. ñett c'est fini carton jaune la booy quatrième rouge bi taxaw xanaa xamoon na naaj léeg-léeg gis xale bu góor bi dox. am nga carton bi yow leen am ah. ñett téeméer yoon muy roog yéen na ñett. non na naa ko def. ëpp na ñett Sénégal damay wax dëgg te yàlla. bu lim njaaloo xam nañ ne ñoom it njaaloo nañ ñi ñu ngi may njaaloo nañ ñoom. mais naaj gis naa xale bu góor bi dox. Mm-hmm. di dox fekk dee nga bu yàgg maanaam jabaru jàmbur boo ci nekkee lislaam da laa rey yow c'est fini dee nga jabaru jàmbur booy ee eh. nga dee yaa ngi dog hmm. wax na dëgg la wax na dëgg na looy dee dog na looy dee dog maanaam su la reyee reyu la reyu la kii en tant que rey nii jàpp la dóor la bal nga dee wala ñu rëndi la hmm. mais maanaam dina dina sariya lislaam moo la rey moom moo maanaam existé too ci moom. waaw léegi fenkat bi sariya nu mu ko def moom xanaa da koo. fenkat bi da koo étarangal étarang étarangal. fenkat bi bàkkaar la. xam ne ah ko dama eh, doon fen xanaa dañ ko. Eh, eh, étarambale wu. la da ngaa fen. waaw ça dépend ci fen parce que fen daa am ay catégorie. fen pas de catégorie. fen mën ngaa comme nga fen fen woo xamee ni fen pour defar. na waaw am na fen pour fen moom. so xasee ba mu pël sa jamiñ jënd na jot na yàq na yàq na. jeex na waaw mën ngaa fen fen wuy defar. ban fen la mooy defar. fen yi defar bari na. nan la mel tey yoro tey jii. waaw naa ñëw. waaw gis waa ju baax nii. waaw muy def loo xamante ne nii naka suul noonu la. waaw hmm? ma ñëw. waaw bu leen ma fenal de. nga ne boo leen ma fenal de. fen wuy defar laa bàyyi ko rek mu wax waxal man bu ma kenn fenal rek. waxal waxal rofeen ma man mu ne bu ma dugal ci gaam yooyu. wax leen seen i waxta ba ma. waa ju baax ah, man bañ naa sama émission laa teg à wax leen seen wax bu la ma ci dugal man mbiri fen waaw dama koy ci man jël exemple feneen teew laa mën a jël exemple ñun ci man man yan yan weer waaw jël ko kon ci weer yaa ngi ni waxal ak moom waaw léegi ci Souleymane Sow jëlal Souleymane Sow yow daal la nga fi eh, Souleymane Sow de thème bi moom xam ne moom yàlla bu ne dañ koy gaar ay Souleymane toj na doo sax mbaa du <laughs> jeeg wër ko nag si nga siil saa yi karawaatu xam nga daa jantal nag waaw karawaatu nag dóor baraay bi baraay mbay ngay faible indi fii la ko teg ci ah, dënn bi bi xam nga ponkal la di njaab jeeg topp xam nga jeeg ñoom saan yooyu la ñuy wër ma ñëw di jege naan ma ñëw di jege jeeg ni lañ mën a football ak seen ah, baax sax mënoo ko saw saw normal ay seen ndey laa da ñëw poosal saw normal laa ilaha illallah waaw yor ma yàqal maanaam seen wuy defar waaw jëlee ci moom rek waaj oh. lii mu wax ni tey waaw xam ne waaj baax tey bu bu demoon tey dootu waaw ma gis ko. waaw mu dem door. waaw bu bu ko naa ne xamee. na doofa. waaw te na doofa yéen ñaar da a kii. waaw pour la waa ju baax maam moom ñoo àndoon. waaw loolu defar na. loolu defarul dara lu la si yoon munoo wax beneen wax te bañ wax wax waaju baax moo gën. waaw mais ah mais damay waxaat ci loolu defaral ba tey da ngaa peew ba tey yaa ngi wax ak waaju baax démul te fekk fenn nga encore yow. Eh. tey moo gën a nekk a affaire dog an. waaw fan yow daal nga jàpp ne moo gën a nekk bon. moo a bon moo gën a bon affaire umbal yooyu. moo gën a bon affaire ah. laalante yooyu nga laal ñun. loolu nag loolu nag. mu neex si neex si moom nga neex leen teel a neex ah, la léegi. waaw lu neex loolu. mais eh, yow yow fay neex. wàññi ko eh, du ma ko expliquer <laughs> Ah, waxal <coughs> basiku boo gisee gerte gi nekk jël bu tooy waaw paccal ay ween paccal paccal ah man de yor mi jaaxal la waaw def ay fer yi waaw fer bu <laughs> loolu moom dina ma lay def dina ma lay def <laughs> waaye waa jur bàyyi def yàqal waaye yéen mi dara déglu nee naa leen émission fa laaj ak kenn daal ah ngeen weddi koy daanu baax na loolu daal la naan dem <laughs> ni may tataf nga nii de jaaxal na ma man loolu lay expliqué. waaw mais yow da nga lay expliqué waaw. xam nga xale jigéen ñi ñuy commencé ba jàll bi jël affaire bi nga xool bi eh. ñaar ñaar ñaar. waaw yoroo yoroo. <laughs> yoroo yoroo waaw yoroo duul duul duul naa yoroo waaw yoroo bi waaw dëggantaan. waaw jigéen bu pàccalee. waaw rek war naa tax moom mu dem njaaloo. kan yor comprendre mais nag am na pàccal yoo xamante ni. waaw da ngay orienté ci yoonu njaaloo. loolu bunte la xam nga lu tax. bunte la wax ma ay ween yoo xam ne amul dara de. waaw des fois nga ci weñ yoo xam ne du sax ndeyam la dañ koy jël bës ko comme ay nafa waaw bañ koy bës nii nga yaakaar ni weñaan fekk weñ dañoo wutu amoon sol fii sama <laughs> di fii di bir yée yëf yaa ngi wa yow yëf yaa ngi may ma ma may nga wax ci fer may ma ma gel ba waaw yow bàyyi leen lii waaye yéen rek bàyyi rek demee coot bi waaw dogré degré kay ku koy sol kay. sàlliwar sàlliwar kii ndigal yaatu na de. waaw dégg nga. kii ndigal ko de. kii du ko naw de. Ah, ndigal yi taar kaw. yow li nga yow say li nga ëpp na ah, yow de boo sol mu wadd ah? waaw yow boo sol mu wadd lii kenn mënu ko sol lii kenn mënu ko sol ci ñun kii ko man war naa mu kii ñaari yow beneen nit yow beneen yore mën na beneen yore du ko ci beneen yore mën na ñaari yoro fii ñaari yore mucc mën na da day def espace ñaari yoro ak seen doom ak seen doom xam nañ léegi moom bu duggoon fii ñu duggoon ñun ñaar ñëw ñu takka fi fer yi. ca doon fi ñaar ñu takk. Eh! ay ñu doon ay ay. jërëjëf waay ba waaw. mooy weeni nga doon jël bi waaw. waaw maa ko fekk ca match ba. match muy supporté. match waaw waaw. naan ay c'est manko lu muy laaj dañ ko jox. ay xam nga booy tànn mu seen leen ni muy def. waaw bagaj bagaj. Mm-hmm. ay ay c'est manko. li ngay laaj da nga ko yéen a tëb naan bagaj bagaj. Mm-hmm. xees pecc. jant bi tàpp ci nag mu nekk ñaari raay mu ne waa mais kii wéy ni rafet na de ma doxaat ko jox rendez-vous boo fi yóbbu ma ma mm. ma toog mënu ma simmikul ma simmiku da sa kiloot mu sama yére teg fële waaw fu mu la ko denc booy bi armoire bi baye ci armoire bi la ko denc baye yaa après da nga bi bi collet bi collet bi dañagul ah, waaw non booy bi mm. ma ne ko simmeekul mu ne non baal ma njëkk simmi ci kaw mm-hmm. mais weene na ma ko gisee woon. bi boobu tekkee si ngooñ bi xam nga sàmbaraaya boo jënd def ko ci paquet boo ko tàjjee. waaw li muy def weene dana ne foro foro <laughs> léegi nag léegi nag après yow loolu loo ci wax. ma ne lii tapis la. xam loo plaisir yi quoi. weer bi naa dara nekk. weer bi waaye weer bi daa mel ne otage jéggi amul dara. waxu jàmm mbuus la man daal tey naa ko ma ñax xool sama baaraam xool sama mbuum mi ni mel fi ngeen nii. ni la mel nii da lay def. yow xam loo ci dajale naa ko dajale. affaire bi leen boobu nag moo ko yor nag ween boobu moo ko yor nag yow. kon ñu xam loo affaire femme bi. ween bu peer wenn bu peer. ma dama wax. weer woowu na mën a. boo ko tëlee bu jóg rek dooral. loolu kay yow waaw mais weer mi tamit weer na. waaw yoram bi dafa dof. yow yoram weer li muy wax weer wi ne wax moom si mbaq ndaw si. weer bi nga xam ne boo ko bàyyi mun a wax. tamit googa wen gata googa wen. wéeroo day wen dara. yow ban wen bu gën a bugg yow. wen bi nga xam ne dafa joxoon. wen day joxoon sàdd sàdd la comme suñu réalisateur. waaw kay waay suñu réalisateur bi. <laughs> weer bi nga xam ne daa joxoon ne sant wallaay wallaay waaw weer balaa baax danaan sant taxaw cus yi amul mu amul ngay daw mën a nii ngay daw bi sax cus bu nga xam ne dañ ci mën a sax des fois nga koy matt ko yàgg woo ween a neex waaye ween waxaa boo ko bàyyee mun a wat ci wóomu mu war a cam gata googa ween ween woowu du ween nga nekk ci feri boo ko ne yow ba mu yow ba mu firee ween yi ween yi mel ni sambareer bu feer ci nga war a tëgal ndam ba jënne ko neefal sax du sonal sama bopp di sax ca weer ñaar après nee ma bës bës bës la après man naa benn gel meew génn kaddu moom doon nampal doon nampal xam dal <laughs> xale jigéen ñi waaye kooku it bëgg na góor de d'accord nga mooy ah. mooy Moussa Diallo na waa gars yi tamit loolu tamit war nañ ko lijjanti ñi nga xam ne dañuy namp wala jigéen ñi day am meew dañuy am meew waaw loolu du dara mais da ah kay loo namp waxo waaw loo namp wax ko mais man gaw ma lu waay namp wax ko naa yow namp nga namp nga ci sa jabar waaw waaw day sa jabar day lakk wallaahi mais la muy lakk yaa ngi koy dégg bu baax ah kon kon sama meew baax na fa la sama meew jabar bi daa dëgër bopp waaw ku daa foor namp naan namp namp dara dégg moom dara ci bambara doomeram di ma ne ko sa ween wi programme ci kenn boole ci kenn boole wu. waaw boole sa bopp. mais nag xanaa xamoon ne loolu la problème bi nag. gis nga waaw Souleymane Sow Souleymane bu nga wax ci wenn rek. Hmm. mu tojal la ci yoo xamante ne. wallaahi wallaahi moom moom la ah, ah, ne. xam a a garaaw boo ko jàkkee man di sa waay fer bi wala dañuy waxtaan ci fer ci kaw may kii <laughs> hmm. mu ngi am li luminose. bii limonose la bii. xam nga yii nag. rafet nañ ñeex nañ ni. bii limonose mais yi nga xam ne la ñuy tuddee yéen tëjee tot tot. bii limonose la. mën naa yi yi neexuma. man yi neexuma am na ko gànd yi ngay yëkkati waaw mooy soon yi doy waaw daan toj mën a kacax kacax kacax waaw yooyu nga xam ne boo laan dalay yokku dalay tawlo dalay siiwal waay siiwal loo baax day day dégg coow loolu ngay dégg sa nopp bi plaisir la lay yokk moo lay yokk coow loolu la yokk loolu la yokk plaisir tàcc tàcc tàcc am na dof yoo xam dañu naan raj raj jàpp ci bopp la bi nag di concentré wu. raj raj raj raj. waaw sa waay mi nga xam ne daa rasa nag bu doon moom la. kan si sa waay mi nga xam ne daa rasa. keneen ki xarit yor bi dañ koy def. <laughs> Eh, Pape Sidi. waaw Pape Sidi Pape Sidi daa am bu doon moom la xaar rasa yi ci lonk. waaw bu ngeen paree ngeen sangu yéen ñaar yëpp. janam maanaam. di ngeen sangu yéen ñaar yëpp di ngeen <laughs> sangu. mais nag mais nag sa waay. fu ñu sangoo nga sangu de. sa waay fu ñu sangoo ma sangu. Souleymane Sow waaw nee na bu ngeen waxee ci waxi slip. Hmm. ak Béthio différence bi. Hmm. da ngeen nekk ay xale. moom moom bu jëkk Béthio moo fi nekkoon. dafa am lu mu bokk. dafa xool léegi ay téléphone bu njëkk ba na daan demee. waaw mais xool téléphone catégorie yi gis. waaw waaw ay snap sama yooyu ngay gis amul woon. léegi am na. Mm-hmm. kon tamit Béthio it na dimbali nag may slip nag deux pièces nag moom it mu savouré victoire am mu nekk en vogue nag. nekk ca kaw ndax man moom film moom dëgg. non béykat sax deux pièces nga def sa sa film. léegi yoroo si ceeb bi bu xees bi nga jàkkaarloo. waaw moom mu def deux pièces boo a jëm loolu. <laughs> waxal rek waxal boo ci gën a bëgg. bu ruus nag yow itam. yi moom amu fi. mu def deux bu ñuul ndax xool ko rek bu ñuul rek man au pièce rek bu mu def nii sax dafa normal. Eh, waay Samba yi eh. mbay mi. da nga yor na mais pièce bi mu def. Ah, un pièce bi mu def nii. kon naan da ngaa boole slip kese la def. mais yor tey jii. xanaa xamul dafa ah, waaw gis nga naaj bu sol wala si kii nga sol. naa la xamal leen bu sol. naa la xamal leen ñu bànneeku de. ñu ngi tey réaliser waaw rek mu sol lii non mu dindi pantalon rek sol benn bu yem rek takk si teen rek taxaw jël bii sànni ko ci kaw xool xool yaram xool bi yaram xool yaram bi gis nga yaram ko rek <laughs> waaw loolu dina rafet te fekk dagg bee baax coot maanaam daa am ñoo xam ne yàlla daa jël su ñoom temps billahi non am na ñoo xam ne yàlla da leen defar boppam mais am na ñoo xam ne yàlla da leen commencé rek jox ko malaaka yi waaw jëmm yi wala la gis jëmm yoo xam ne jëmmi dara femme tamit bu xonk buy baax na si de parce que bu ko waaw léegi yow yoro ban couleur moo ci gën a rafet nga yaakaar ci di sari boo amee femme bu xonk rek courant def dof mais nag yéen liggéey nag doy na ci nag ndigg mais nag naaj waaye liggéey tuut na nga dëgg da nga ko gis de ko yéen ndigg lii it yéen ndigg lii lii rek ngeen war a wax du loolu mais ndigg lii ndigg lii fer yu di dugg yow de lii ndigg la de li moo si baax yow yow xamuloo eh, li daan ngand waaye loolu moo si baax yu ndaw yi yu ndaw yi nga xam ni boo boosee mu def. kàlla ñu man de seetlu naa leen nag ñu tuut ñii. waaw jàpp ko nii sa loxo sax. du daal ko yor kay. waaw nga jàpp ko sa loxo du man neex man loolu damay daf may neex. Hmm? non yow moo xam ne nga bëgg lu mag. man bala ma man ma xam ne maa ngi liggéey. man ma taaw la suuf di sonn taaw la maanaam foofu lu bari ci suuf comme nii hmm. waaw mu tëdd nii rek lii mooy down. man ma foog nii rek dugal sama ñaar loxo nii rek. ci man lii dafay neex même ma deful dara naa téye nii rek. ma xam ne lii dara la daal. nga dëgg ah, dara la jigéen nga jàpp ci ndigli nag. Ah, sa loxo du daje gaa. Mhm. waaye da koy mën a yëkkati maanaam tam-tamal gi koy tàmm. yëkkati da ngay mën a tóoj da nga koy mën a wëlbati da nga koy mën a. yoroo yoroo yow yow boo gisee nga tàmm bu bu bu bu sew waaw c' est que yow mobilio mobilio wul. nekk da ngay dóor mobil naa bul ma di sama yaram man. non amuloo huile da ngay dóor wallaahi mobil naa. non gaaw non gaaw amuloo huile nen wala amuloo huile. yow yaa amuloo huile barki Rasulaay amul huile. amuloo huile yow amoo huile. da ngay dóor moo tax boo amee boo am itam amul huile yéen ñaar bi. yoro léegi dañuy am eh, dóor mobil naa. du amul huile day dóor wallaahi mobil naa. yow pour nga bëri nii il faut il faut il faut. il faut mu mobil. pour may dire mel ni bombardier sama sang yi ñoo baax ci ponkal. waaw waaw waaw mënu ko waaw fu leen saraan nga dafa ne damay jël ci suuf ma rocc ko waaw dëbb la naa nga dafa nax ma rocc ko daal la cabaxal wéy la la voilà c'est ça yow ne loolu mënu ma ko mënul yomb naa yow bu eh, yow ma la yóbbu wallahi du ma rëpp de waaw da ngeen koo foog xaj baw na xamul xamul ah baax na xaj baw na xamul xamul ñàkk ngeen maa xam ñàkk ngeen maa xam wallahi mu bi yow gel benn se waaw ngeen ne ci digg léegi waaw mën koo jaar ci flanc waaw kay. waaw bu ah. arrière da ngay mbëpp. waaw war ma raw. Hmm. da lay ah, mbëpp kay bu bëggee jaar samay falan. dama koy napp. non yow ku góor gi yaay doxal. waaw bu may doxalee bu ma jaaree ci falan xam nga dama koy romb. waaw dama koy romb ndax man bu ma jaaree ci falan damay dem. non yow yaay tuuru moo tax maa nuuru fan da ngay tuuru waaye da ngay tuuru wax damay dem waaw yow da ngay xam nga loo mun taxawal rek xaar yow nees taxaw rek nga mën taxawal rek xaar yow biir ñëw rek dese nga def ay asio eh, waaye foo bëggee eh, dem maa lànk maa lànk maa bañ lu ngeen mën mën naa lu ko raw lu ngeen mën mën naa maa bañ du ma ko nangu moom naa am naa ko tabax bii mënoo ko bii mënoo bañ a man waaye nii lan la. bii ma ko bii ma ko bii ma ko bii ma ko waxal ma ma ko. la lan la. wala wala yàlla yàlla mënoo bii. waaye yow li may def nii lan la nga mënoo bii. gis nga doom nga def wàccal wàccal wàccal sonn wàccal. maa ngi maa ngi. yéen tey am naa. maa ngi. bu ñu la bu ñu daanoo mën nañoo naan ndaaw ndox. waaw. yow nag daal xamal na ko nag ñàkk nga xam. dañuy appareil la góor nag sax balaa baax. boo daanoo naanal ndaaw ndox. kat si nga doon ndax da ngaa toll neen moo da ngay naan pot. pot doy na sëkk de. da ngaa toll neen da ngay naan pot. ah ndaa nit na ko naan. Ah, boo toll nii ndaa. ah boo toll nii pot na pot ngay naan ku nekk <laughs> ku nekk li nga toll loolu ngay naan bi. naan ndaa. bu naan ndaa mën a naan si woo de yeelam yi day jël. yor moom day siiw mën na ko naan. waaw. affaire yi il faut ñu mobile. yeneen li tamit boo xoolee waaw jigéen ñi maa mobile mobile moo tax. waaw léegi mobile ma. mais gis nga scooter yi faale wuñ circulation. nga ne scooter faale wuñ circulation. yow comprendre nga nag as yow. yoral camion ma yor scooter la ma dem jëm ñaar si ñëwaat. voilà c'est ça. léegi ma rey sama léegi nga ma ne pii moom bu naqari moom ma fel la nga daam. irsan ma dem ñëw. léegi ma rey la. mais yow mën a yóbbu kenn irsan scooter yi rey camion yi. kan saa su ne scooter yi. non ci waaye camion yi leen rey chaque jour. camion yi leen ah waaw seetal tali bi. parce que mobiluñ. mobiluñ. waaw ah, baax na na benn parce que mobiluñ. mobiluñ mobiluñ. mobiluñ la daa mën a leen def demi-tour si. yoro yoro yow dégg yoro yoro. kon nga safar. yoro dama fay cappoor kam yooyu dañuy dugg foo gis nga gis mhm. mhm. xamul tax. waaw yoro daa war. Ah, ok xam nga day dem TFM dañ ko jël foofu. waaw waaw rajo gi. ah kay. xam nga lii moo tax ma wax fekk moo ah, gën a jaay yor lii moo tax ma wax fekk yor bi ngay waxaale Bouba Ndour may taxaw yor daan rawat laaj yow yaa ma gis day wax Alaaji Njaay day dem man daal gars yi jaaxal nañ ma day dem de kii moo mun fen day dem samba maa dafay lami samba maa fan fan nga ma day dem dafay lami samba foo ma gisee nee na bu ko kenn yëg ah amul dara di bari ko ko war a bintu yaaru suuru laay yoo boole ñaar ma sunu ko maa suba ko jam suba ko baara mën a bintu yaara sunu la yow lii moo tax sa karaw bii dem yow heure boo fenee benn karaw moo gedde heure boo fenee benn karaw découragé dem yoonam ngay fen fii ah fen ah fen ngay wax di feneen loolu ngay di gis bu ko jar na jooy bi laa ko ñëwoon daaw rek dem dellu naa ci télé El Hadj ay góor yow yëpp nekk di fen di wax waaw ah wala dafa jar jooy yor. waaw loolu daa jar jooy. waaw loolu loolu jar jooy la. waaye ala njaay ko yor ay bakkaar. ay tuul ah yow kay sa kanam gi man dama jàll ko. waaw. waaw dafa ah, yow itam. yaa munu pen. ah da ah. ngay pen laa wax. seen waa kër yëpp dañuy pen. ñam ah. yow da ngay pen. amul lu moo tax ñu noppal. rek waaw ñëw fi alaaj waaw sëñ Modou boobu Ndour woon na ma wax ko la waaw boobu Ndour waaw moo ko woowoon waaw waxal leen gaaw ma maa ngi gaaw naa waay gaawal waay papa jam ko ko mo baax waaw waxal gaaw alaaj alaaj alaaj waaw alaaj Njaay boobu Ndour moo woowoon kii waaw mu wax ko doxal mu wax lan laa ko wax yore na ko waaw du ma ñu yor non non yor yor ba jam yow itam doo taa wax doo taa wax bu la metti dafa baax waaw waaw dafa yow yow dafa kon daal mo wax yow ko daal mo wax alaaji yaay waaw leeral yow leeral daal waaw daal waaw yow boo téye fi dama mën a wax boo téye fi dama mën a wax waaw xalaatee nga wax fi la wax bu nekk waaw waxal Alaaji Njaay Alaaji Njaay mu ngi lay dégg Alaaji Njaay waaw dégg na waaw bu dee dégg na noo dem bi moom mi ara am tam ko gàllam ko mi waxa la de gàllam waaw gàllam ko yaa gàllam ko waxa la boobu Ndour mu ne ko waaw boobu Ndour mu ne ko da koy woo foofu waaw pour jël ko fay ko foofu waaw waxal gaaw fay ko 500000 waaw 800000 800000 waaw wax ko leen après yor na ko yokkal 200000 ma ñëw sirati warta wasaki anna ati jaɓaɗo jamine ati jannane e bajam o leerele wa yarna manna taalaɗo e duulaɗolan waxalne de layal même ɓuɗu def leer rek lay duya mbayne yow ngene bëggo waaw layna layal waaw laaji njaay moo la ñor waaw mais dala woowaat kan woowaat la yow bàyyi nga def yow itam bu duga sa bopp fu ko woowaatee woowaatee waxul loolu yow kan dooxul dara waxul dara toola buuba moo la woowaat kan buuba man Viviane maa ngi seetaan télésénégal point com.